métier mécanisme nekk métier bu noobu lool bu ñu bari di jëfe yi tamit waaye ca Thiès ñu am ñu fa nekk xam nañ ni métier gi naam am na avenir gi ni mel waaye mbirub technologie daanaka mu ngi leen di dab ci li li mel. ay auto électrique yoo xamante ne daanaka ay machine ñoo koy liir seeni jàng soriwul waaye ña ngi koy daal di jëfee xam nañ la ca de lii mooy seeni kàddu. jamono ji ñu toll fii vraiment affaire yi def ñu euh, xaw ma nag ñoom mais man moom affaire xaw na maar dépassé tuuti parce que ak technologie bi moom fu mu nekk nii foog nga yokk sa xam-xam pour nga mën ci bokk te am na aussi vraiment âge boo xam ne boo ko xasee ba am bon man daal yaakaar naa ne jaratul ma yàq sama sama énergie ci wut xam-xam benn bi. Hmm. moo tax daal toujours man boo yi ma nekkal nekk ñoom toujours loolu laa leen di wax bon boo ci bëggee dem bon foog nga jéem a wuti xam-xam jéem a dafi électronique. parce que eh, oto léegi même fi mu nekk nii ni mu kii bu ndeyam ba ci kanam dina gën a metti gën a jaxasoo waaw te aussi vraiment <coughs> état bi du lépp lañ ko mën a du lépp la man mais aussi am na loo xam ne vraiment moom c'est le minimum war na jàppale nit ñi bu baax a baax a baax a baax surtout gone yi nga xam ne yaakaaroon dara lu dul seen métier yi. man man électrique laa électricien laa liggéey mais début bi début bi day métti quoi parce que début bi nun lay dugalee atelier doo fa xam kenn. mais yaay xam looy bëgg ñëw toog lu ne mën na la see dal lu ne mën nga liggéey lii yàq leneen des fois mën nga ñëw génn si ci ni moo leen koy wan wala yéen si souvent moo ñu si génne mais tamit formation parce que des fois da ngay gis koo xam ne jàngul tollul yenn niveau yi léegi yow ñu ne formation bii bala nga xëy def faaw nga am bac wala soit BFEM wala genre yooyu noonu léegi tamit état bi faaw ñu faaw ñu gëstu ñoo xam ne am na ñoo xam ne jànguñu wala soit bu ñuy jàng ay CM1 la ñuy bàyyee CM2 comprendre nga léegi bu nga def formation comme jamono su su jamono ji boo jàngul da ngay bokk moo tax état fa mu jàppale jeunes yi daal mën nga ko jël si comme mais lu si ëpp di ko xam sans machine oto dalay romb nii di dem nga xam ne oto bi panne lii mm-hmm. ak lii te moom waxagu la daal oto day daw ñëw taxaw nga xam ne oto bi panne nangam ak nangam te loolu dara lu si day loolu yaa ci lu si gën a bari si kii dawal oto bi mën na ñëw expliquer damaa paan nangam boo ko laajee nan la constaté fan yi wala lan la oto bi doon def rek ci loolu mën nga ci appuyé ba xam lan la paan waaw oto moom machine yi nii dina si dimbali mais lu si gën a bari nekkul ay ëpp ci paan yi théorique bi nii ci machine yi machine yi déedéet machine souvent da lay boo xam ne fu mu doo fa doo doo ci génn ci paan moom mooy mécanique mais pas théorique bi nii rek comme ñi koy théorique nii ba kii ko mënuñ see def lu bëri ci génn ñu bari ci ñoom dañuy daal di jiital formation gi ni mel daal di nañ wax ne lu ëpp ci ñoom bu fekkee ni amul formation maanaam yenn lijaase yi nga xamante ne mu ngi làqu ci ginnaaw métier gile dana métti lool ci ñoom. waaw waaw waaw parce que lu gàtt gat war nga mën a jàng. ba am benn niveau bi. parce que am na loo xam ne bon. ay ay ay ay bon yoo xam ne ay ay schéma yeeg yooyu pour nga mën ko liir bon foog lu gàtt gàtt daal di nga xaw a jàng tuuti am yoo xam ne di ko xaw a mais bu fekkee. xamoo dara dara dara dara vraiment moom kooku moom limite moom day day day day. waaw fii moom su su jamono jii nag ak Thiès gi ñu nekk parce que parce que bëri na jeunes yoo xam ne dañuy am si métier du bët ñu bàyyi ko fi dam dawali jakarta te jakarta moom wax dëgg fa yàlla nekkul loo xam ne day continuer di gën a ñaax jeunes yi rek képp ku si sa jàng xas ba rëcc la nga góorgóorlu si métier bi te fonk ko parce que xam naa ne métier mooy lépp. d'accord en plus tamit état bi gën ñoo jàppale geesu ndaw li parce que ndaw yi sonn nañ trop. d'accord dañuy góorgóorlu bay bëgg a dee souvent da ngay gis nit koo xam ne day góorgóorlu bay bëgg a dee mais souvent lu tax muy daw dawali jagataa sax yenn situation yi ñooy tax du mun a jàng métier genre yooyu noonu état bi nañu dimbale. ca loola mbirum mécanisme bi mu laaj ay bërëb yoo xamante ne ñoom ci seen bopp dañ koy daal di soxla ñu gën a bari ci ñoom seen mébét mooy ñu yóbbu mbir mi àllub kaañ wala sax yenn bërëb yoo xamante ne ñoom mën nañ fa nekk ñu mën a exercer ni ni mel waaye ñenn ñi nee nañ itamit bu fekkee ni jóge nañ ci ville bile yenn oto yuy paan ci dëkk bile du leen daal di arrangé te itamit fii ba àllub kaañ sori na lool. si si si si si. parce que da ngay nekk benn moment parce que ñun yëpp boo xoolee si presque wala 75 pour cent yëpp garage yi duñ ko moom ah nga ñëw luyee fenn boo demee dem dem ba yàgg bon bu fekkee àll la sax boo demee benn moment après bon ba nga xam ne dëkk bi ñëw na boo wër ko wër ko borom da koy daal di soxla te boo boobaa soxlaa bu ko soxla aussi da ngay daal déplacé wutiwaat feneen moo tax doo toog benn place bon mas na fi am ca temps Idrissa Seck mooy côté xel ko mbële ñu jëloon yëpp après recensé quelques personnes lañ fay yóbbu après boo jeex na loolu nag vraiment aussi ba boo ci état bi dimbale woon booy aussi dina baax daal bon àllu kaañ kii baa ngi nii bon nu mu tuddee forêt classe bi yaatu na bon ñu dagg ci lu bëri bon daggal ko boroom nga euh, chef d'atelier aussi kooku dina leen dina leen jàppale daal. àllu kaañ moom boo ko yóbbuwoon mécanicien bi ñu doon yëg ñu yor oto am problème. lu tax la nooy paane kees bi dem ba àllu kaañ mënut a nekk garage nekk lii ma la wax rek ay place alukaañ baa ngi fii yaatu na waaw ñu dagg ci def comme ni defoon côté Xelcom be recensé chef de garage yi après ñu yóbbu leen fa bu nga xam ne bon zone de kii lay doon daal euh, zone industrielle lay doon mhm. bon pas nekk ci biir koñ bi di tànqalaate di accélérer fii yooyu yëpp aussi vraiment c'est pas intéressant d'accord merci beaucoup ok diggante xëyub ndaw ñii jafe-jafe yi nga xamante ne ñoom mécanicien yu Cees yi ñu ngi koy dal di jànkonteel waaye ay oto yu bees yi nga xamante ne ku jàngul ku amul lijaa sa amoo ca place waaye mbir mile sonal leen lool waaye lu leen gën a ñaxtule mooy ñu am ay place ay bërëbu liggéeykaay yi nga xamante ne danañ fa mën a liggéeyee te kenn itamit du leen fa sonal waaye leen lii mooy nguur gi lay jàppale leen ci ay formation ndax ñoom ñi le bëgg nañ ko lool lii moo nekk seen jafe-jafe muy ay mécanicien yi nekk ca Cees